daal di joxe ab yam waaye ki nga xamante naa ne Mamadou Mohamed Ndiaye seetaan naa ko may ko yabaate la weesu ngay dagg nit koo xam ne kilifa la nga invité ko ci sa émission même su dee euh, au téléphone la muy wax waxul sax nga daal di koy dagg di ko won ak reewate man man foofu journaliste ba moom Mamadou Mohamed Ndiaye la tudd moom moo def moo wane ak réewande mais wax dëgg yàlla man jàpp naa ne Bassirou Diomaye ay position la doon joxe di wax li xalaat avec son style te ñoom buñ koy invité xam nañ ni noonu lay waxe kon man jàpp naa ne loolu waxu kasaaw kasaaw la ki leen war a ŋàññi kay mooy journaliste bi ni mu taxawee man pour man jàpp naa ne loolu rafetul parce que da ngaa laaj nit ki muy muy wax ak koo xam ne ñoom ñaar ñoo ñoo yëngatu ci politique yow sa yoon nekku ci leen a invité rek mais parce que keneen kam doon xëccool moo gën a arrogant ñëpp te kenn tagg ko kon man jàpp naa loolu ay tappale la mais yooyu yëpp du jàll parce que fii réew mi kenn moom fu yaakaar man nga fee manipuler Sénégalais yi